tey dañ ñëwoon fii ci zone de captage pour visiter chantier bi nga xam ni mooy moom la fi chef de euh, joxe ndigal pour ñu def ko euh, comme neen ko xamee at yi passé population zone de captage ak ñi dëkk Grand Yoff amoon nañ ay coono yu xaw a yu ay jafe-jafe yu bari ndax ndox mi doon ball euh, ren ONAS jël na ay disposition ay matukaay ba liggéey bi ñu door nañ ko Euh, ñëw naa fi keroog le 5 euh, visité diggante la cinq ak le 17 gis naa avancement bu am solo ndax euh, boo seetee fondation yi ak li nga xam ni moo war a ëmb ëmb mur bi loolu daanaka genn wàll gi def nañ ko li ci des mooy radier bi mooy mur bi ci boppam mooy voile yi plutôt yi mooy mur bi nga xam ne mooy génn nga xam ne mur béton armé la boobu tam liggéey nañ ko lu war a toll ci 500 mètres incha allah coulage bi dana commencé ci ci ci ci ci waxtu wi néew incha allah kon liggéey bi wax dëgg yàlla avancé na te ñi ngi ci am satisfaction bu baax a baax waaye nag lu ñu dolli mu gën a baax. ndax euh, nawet bi yegsi na ba noppi te population yi am nañ ay jafe-jafe xam ne amoon nañ ko daaw ñun ONAS bëgguñu ñu am jafe-jafe boobu te loolu mooy ndigal li nga xam ne moom le président de la République joxe te ci loolu la ñuy fas yéene teg suñu suñu tànk. Euh, beneen pàcc bi ma bëgg a wax aussi mooy gannaaw liggéey boobu ONAS jël na ay mesures conservatoires mooy li nga xam ne même bu liggéey bi parewul. am na dispositif bu ñu fi teg boo xam ne bu ndox mi ñëwee dana ko mën a yóbbu gis ngeen ñaar moto pompe fi nekk muy moto pompe yu mag yu mel 1600 mètres cubes ak système de drainage bi ñu defar nga xam ni bu ndox mi génnee danañ ko mën a pomper yóbbu ko ci ci ci ci fu te du am benn benn jafe-jafe. beneen bi nga xam ni tam mën nañ koo wax mooy ñaari groupe électrogène yi nga xam ni euh, on a jëloon engagement pour livrer ko loolu itam livrer nañ ko ñu ngi dox te am nañ yaakaar ni bu courant coupé woon wala Senelec am ay jafe-jafe danañ mën a conduire ba ndox mi du mën a du mën a tàkk loolu yëpp daal li muy tekki au total mooy kilifa yi instruction bi ñu joxe euh, ñi ngi ci te ñi ngi koy suivre bu baax a baax au plus haut niveau euh, ONAS li mu ci mën mi ngi koy mi ngi koy def teg ko ci instruction yooyu te am nañ yaakaar ni incha allah jafe-jafe yi amoon daaw daal dootul dootul dootul amaat fi may daaneel sama kàddu daal mooy gën a ñaax entreprise bi gën a ñaax équipe technique yi ñu gën a góorgóorlu gën a baral seen loxo ba délai bi nga xam ne moom lañ joxe woon muy day du 5 ñu bañ ko dépassé mur bi pare Euh, système de pompage bi ñu mettre ko en place ba nga xam ni ndox mi bu ñëwee fii ci bassin zone de captage dana mën a dem ci ci ci lu mucc ay mu bañ am benn jafe-jafe jërë ngeen jëf. Hmm.